alaikum mbokk internet yu en TV dal leen ak jàmm te di leen ci teewlu bi samedi bi ñu wees ñu doon amal ab cérémonie de remise de prix ràññee fële ci musée des civilisations noires benn doomu Yaraax nag ràññeeku ci te nekk acteur de développement communautaire environnementaliste yàgg a porté combat ci wàllum environnement ak cadre de vie rawatina li di baie de Hann moom nag di woo ci tour Mbacke Seck nekk lauréat du prix de la protection de l'environnement waaw damay sant yàlla bu baax a baax sant yàlla sant ñi nga xam ne ñoom laa àndal liggéey prix bi man maa ko téye sama loxo jot ko mais ñu ñu ko jox mbooloo la mbooloo mu dëkk yarax la ci beede aan bi mbooloo mu dëkk caaroy la mbooloo mu dëkk mbaaw la mbooloo bu nga xam ne ñenn ñi ñoom a mag parce que ñu ngi tàmbali xeex bi 88 87 88 di ko xeex ba 2020 ànd seeg suñuy rakk ànd seeg suñuy doom ñooy ñëw moom prix bi ñi moom prix bi mooy ñi nga xam ne ñoom laa àndal di xeex littoral bi nekk Dakar nga xam ne gaa yi ngi koy sëkk di ko moom prix bi mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk dans les mines du Sabodala di xeex euh, dégâts yi nga xam ni mine d'or yi ñu ngi koy def ci environnement bi ñi moom prix bi mooy ñi nga xam ne ñooy écogarde yële nekk parc de juuj di def lépp pour picc yi continue am fu ñu nekk ñi moom prix bi mooy ñoom imam Diallo yi nekk Casamance. nga xam ne ñoom ñooy xeex dagg garab yi ñi moom prix bi mooy suñu xarit nekk mbëbës di rayante pour que li am mbëbës dañ ñi moom prix bi mooy waa Bargny mooy waa zone des Niayes mais waa yaraax nag ñoo moom lépp parce que lu ñu am yaraax lay dellu euh, di gërëm ñëpp di sant ñëpp di am mbégte parce que ren li ëpp solo mooy mbedd bi gën a rëy New York muy Times Square sama photo dañ ko fa def du sama photo photo wa mérite parce que nous am yarax lañu joggé buñu xamé ci jeunesse yarax lañu joggé football yarax lañu joggé ci environnement aussi yarax Nous ñuy tout le mérite parce que c'est un le travail d'Esna, parce que nous bëgg yegg moy suñu ba dem football sport dem te doo fa jëlee pollution doo fa jógee feebar sa tànk du dagg du bënn loolu mooy suñu objectif te ñu ngi ci yoon bi parce que yara restructuré nañ ko ba mbedd yi yaatu nit ñi ñu ngi am conscience environnementale ba toppatee seen cadre de vie jaral na leen xuloo jaral na leen xeex jaral na rayante jaral na def seen alal jaral na wuti alal def ko ci loolu mooy conscience citoyenne bu bees bi nga xam ni am na yaraax

bu naree yàcc yàccaaral ñu am groupe de citoyens bu ko fëgg na ko choses, nous nelaw yi satisfaction moy objectif parce que cadre de vie pour défendre pour sensibiliser les gens sur les changements climatiques pour voir sur la nécessité de protéger les zones humides c'est important que conscience environnementale nous ñu dëgëral ko mu nekk lu sax ci nit sax ci sax ci walu bonne pratique mais sax ci xam fan lañu jëm ak lan moy njëriñu alam waaw dañuy fàttali histoire rek 2002 lañu def pétition pétition bi mu nekk 4000 signatures man mako ko administré Assane Gueye bi nekk jaalawaali moko ko bind ñu tiré ko ci machine mairie, maire wër dëkk bi jatt jatt wut 400 signatures 4 4000 signatures bu ñu ko amee ñu délégation de benn nit nga xam Bamar Gueye mu ngi ci Matar Diaw ngi ci woon ak man ak suñu Bakar ministre de l'environnement Nous avons dañu bëgg gouvernement bi waxtaanee tefesu Yarax loolu ñu Nous ko def en août 2001 février 2002 le gouvernement du Sénégal woote réunion consacrée essentiellement à la baie de Hann wax ni baie de problématique bi ñaari bi ci njëkk wàllu restructuration la jubbanti mbedd yi ba camion mbalit yi mën dem géej tibb mbalit yi deuxième programme bi assainissement la mooy fexe ba ndox yi bon yi dem tefes bi yëpp ñu canaliser leen yóbbu leen fu ñu leen mën a seggee donc volet restructuration bi avancé na mais war nañu ko rectifier parce que am na ay erreur am na mbedd yu xat am na ay nit yu ñu waroon dédommager correctement dédommager wuñ leen am na ay aménagement yu des I'm y ay terrain yu nga xamni ay nit jënd nañ ko dañ ko def ay espace communautaire yoyu yëpp dañ ko wara xolaat ko wa restructuration mu dess assainissement fexé ba ndox yu bon yi dotul yegg mu day problème mi gi di programme bu environnement chaque jour ñu jël ay nit recruter leen di leen fay wutal leen équipement yu doy ci wàllu jumtukaay wutal leen ay matériel kamion ak ay ndaraan yu doy fay leen fay bu dul tardé chaque jour bu ñu xëyee ñu bale géej gi ba mbalit mi nga xam ne mi ngi des ci biir géej bu ko géej gi génnee ñu mën ko jël yóbbu si la ñu xalaat ci biir panelu Baie Hann bi di sant ñi ci ne def li ñuy woowee dégrilleur mooy wut benn tame

restructuration bi programme mu segg ndox mi topp si programme mu segg ndox mi programme mu formal mi géej gi génne topp ak yooyu programme yëpp lépp lu ci nekk ci erreur ñu jubbanti ko ba xar kanamu yaraax ni mu changé mu nekk ci ni mu gën a baaxee parce yenn saa yi nga wat sa moustache mais da koy jekk jàkkal ba mu nawees loolu la ñu war a yegg fu mu nekk nii ci li nga xam ne changé na xar kanamu yaraax te suñu empreinte daf ci nekk parce que ñoo def pétition bi ñoo ciy dox depuis 88 duñ sonn duñ ci tàyyi xëy na dinañ ci dox ba bijjaa wala ba màgget mais dëkk bi dafa war a defaru te suy defaru ay doomu dëkk bi ñoo koy defar. dañ koy félicité dañ koy félicité ñoom xam na yan critère la ñu tànn ba def ko meilleur maire ah yàlla na ko jig eh, ñun bu ñu sañoon yaraax meilleur lépp yaraax lay nekk meilleur TV de ci day nekk Hann TV. meilleure équipe de football day nek USB meilleur troupe théâtrale day nek Kàddu Yarax meilleur mbeur day nek Moussa Ndoye wala yenen boy buñu sañon dal lepp luñu wax meilleur ci Sénégal Yarax lay nek parce que moy suñu dëkk té bobu lañu identifier donc su nekkee am na loolu ñu féliciter ko ci. ah limay jéxalé moy ñaax suñuy rak ak suñuy doom parce que ñoo fi nekk ñun buñu ñu 55 ans am parcours ci walu jeunesse luñ ci waron def ñu def ko un parcours vois le sport, Je le Un parcours l'environnement, parce que c'est mon troisième euh, euh, prix en matière d'environnement entre 2015 et 2019... 2015, amna prix. 2017, amna prix international Amérique. Et 2019, nous 2020, nous avons décerné. Nous voulons faire des choses. Parce que l'homme de Yarach, il est bon et performant sous gëmee bopam man en tout cas me gëm sama bop su may def dara du am tiaxan du am tricherie pas-pas la ci àndal pas-pas bobu sax daf lay andil non. parce que du comprendre sa détermination mën nañ ko tek jaay affaire wala lenen mais détermination ak pas-pas lolou le góor ñi mënante nit mën na la ëpp alal nga ëpp ko détermination nit mën na la ëpp xam-xam nga ëpp ko pas-pas